asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xattaahu wahabu ya rasaqu ya maliki taw habdi ya warsukni kuni ana darqi asilna ajilan bil bishri mamadin xata qimadi dinilahi arkana yasul juani tuba waxmini waqini adal wara watrib li samaskana kasama wal adi wahaw biya musharikin li mashkuna ajib wasal bismi xasana di muhammadin waltafil faaxil baa subhanaka sama xamu sayna waxmi xamen amin بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة في التصوف الإسلامي xam naa lii ab gëstu la boo xam ne dañ ko defaroon madrasatu Fathul Manaan bi nekk Touba Daaru Xudoos nga xamante ne franco arabe la boo xam ne nañ ñi ma ko alxuraan wala ñu min ko moo ñoo tax mu jóg dañ fay jàngale lee dañ fay jàngale lislaam ak adduna nga xam ne xale bi fu amee ñetti at moo mën a am certificat ci français ak ci arabe nga xam ne daal am murid am murid lan lañ ci bëgg a génne lii lii lii nga xamante ne ab programme la ci foofa dañuy wax ne addarsul awal mooy ne at tasawuf xam-xam boobu ñuy wax tasawuf maanaa léegi kat phénomène la bu bu bu daj kapp àdduna xam nañ ko ci ci wawaakir tafkiir ak diin yi maanaa maanaa ci xam nañ ko ci lu teel ci xalaatinu diine ci civilisation yi amoon yëpp tàmbale ko ci civilisation bu Égypte ba nga xamante ne booba diine dunduk kaxarut yi la dund goo xam ne dunduk tasawuf la dugg ci àll bi waaw aw aw irfaan mu tasamit wala boog daal ci liñ ko metti la woon booba zuhdu kaana chiaruhul wahid bil maana thawri li kalima booba sóodu moo amoon sóodu nga xam ne sóodu mooy dëddu dëddu dañuy xam nag ne dëddu nag position la ci position la bu dee dëddu nga xam ne day doon position xam ne da waa ji day dëddu ngir ngir ne loolu ab taxawoo seetlu lay indi su boobaa su boobaa dëddu boobaa doon sawra doon révolution dégg nga ca Abu Saril Xafaar yi ci jamono Seydina Usmaan dégg nga Xusayf al al Yamaan yi moom moom it jamono Seydina Usmaan ba ci Seydina Muawiya ñooñu saxaaba yi nga xam ne jamono jamono nañ toon ak Seydina Muawiya nga xam ne ñoom dañoo gisoon dañoo beroon ngóor gi beddiku ngóor gi ngir loola doon position ci ñoom loolu la ñuy wax azur dëgg bi bi ci nekk révolution la waaye xuñu zuur ko xam ne da ngaa bayliku adduna mënoo ci ci ci dara nga bayliku ci déedéet kii adduna da nga koy mën ba noppi ba ko bu ñu demee ba ci ba ci ba tasawuf juddu danañ danañ fa gis malikum dinar waaye booba waaye asikuñ fa wax ndax ne kon surdu booba loolu kon moo jiitu li ñuy wax tasawuf phénomène bi ñuy wax mystique tasawuf booba zuudu booba moo ko jiitu nga xam ne kon zuudu yi ñoo xam li ko waral mooy booba xéwal yi bari na gaa yi dëddu ruu ruu islam yi dëddu ko nekk ci fiq baak yooya ku maanaam kuy julli di di woor dàqa waxi maxaarij xuruuf yi alxuraan yi loo man di bon ci geneen wet yow baax nga souvent ngi gis ne kat lii moom ak woor la wuruj la ñu daal di daw ñoom génn ne dañoo bëgg a dund seen diine ñu ne boo bëggee dund sa diine ñu ne la def ñu ne ah ginnaaw xewal gi dafa ci walangaan duutoo mën a wax dëgg ndax dëgg day am borom léegi borom day am ku moom dëgg kon su boobaa ñu ñu ne kon luy pexe ñu ne xanaa kon génn xuruj xuruj nga xam ne xuruj daal di génn dem ci àll bi daal di wutili ko àll ba loolu mooy zuhdu bi nga xam ne position la waaw maanaam léegi aw doxalin la dara la dafa dafa am lu mu jublu dafa am lu wax bu buñ demee ba ba ca serafal da dara feeñ ca yére ñaxasam yow kaa ne position la waaw ne kon noonu kon la tasawuf feeñee ci diyaanaat alhindil kobra mooy albrahmiya yooyee wala aljainiya wala yoga wala buusiya ñi ngi nuyu fii lool sunu sëriñ bu am solo ku ñuy wax sëñ Fallu Busa Kébémer wala Busa dëgg Kébémer doomi sëñ Omar Buso ku am solo la dama dama fa toog ab jotaay yéen dafa ànd ak sëñ Fallu Njaay moom suñu seexoon naa ci bu leen ñu dox fa moo muy mu dee waxtaan ak man ci diyaanaat la hindi al kubra keroog big naa ndax yaakaar naa am ku ma toogal muy waxtaan ci loola yaakaar naa wala mos naa am xaw ma ko fàtte naa ko ku am solo nga kooku kooku man nga ne mutasawwif la suufi yi man nga ne zahid la zahid bi bi zahid kon zuhdu huna bil maana sawri koo xam ne ne révolution lay def position révolution la waaw ku am solo la ku am solo la ma ne nag tasawuf foofu nga xamante ne ci ci denatul hindu al al al hindukil kubra ma ne loolu hiya axiru xalaqaati tafkiir fii falsafati te te te hindu kubra moo xam ne ci mu te mooy buusa al al al buusiya buusiya moom foofu la yëfee daal di jeexee nag foofu dafa mel ne hind fa la ruwaam mate sëkk daal di àgg nag ca joboxtan la ruuga daal fi jóge fan la jóge moom juju ànd daal di daal di dem Faris ba mu fa ñëwee ci alfiyel ula ba junni at yu jëkk ya jëkk jëkk si si milaadi si si na Isa alayhi salaam daal di feeñ ci daal di reflecté wu daal di représenté wu ci ay ci ci diine ju ñuy wax Saradachia mooy chara chara chara charawerch ak diine ju ñuy wax manawiya ca ca Faris man wi ñoom ñoo gëmoon suna aylu xayru wa char ne ne ne que baax ak bon am na dafa am yàlla ju baax am am yàlla joo xam ne moo yor baax am yàlla ju yor bon mooy de deenatul man wi ya loolu ca Faris la mu ne kon axiran intaxas bi ruux ila siin si ruuga nag day mel ne bi muy dox ba ba ñëw foofu dafa daal di jóg na daal di tëb dem dem siin ci daal di manifesté wu ci diine ju mag ju kawe yoo xam ne moom ñu tuddee al Confucius confus al Confucius diine ju ju am ju am solo la diine ji wala bokk école boobu ñi ñi ngi koy du sax diine dëgg dëgg école ndax moom école ay jikko yu bay baax rek nga xam ne tasawuf rek la moom la doon moom la moom la doon woote ñi ngi koy ñi ngi koy askanale seen borom xam-xam bu mag ba Confucius loola ci téeméeri at yu jëkk yi ca jë jëkk milaadi Seydina Isa la bu ñu ñëwee nag kon ci ci ci islam dañuy fekk tasawuf muy mystique yoo tabaru tasawuf tawlifatan li kulli qiyam allati rufiat aw rafaat liwaaha xukamaau lxada alqadima islam dañuy fekk ni maanaa maanaa valeur yëpp qiyam yëpp yu baax yëpp yi nga xam ne borom xam-xam yi civilisation yu jëkk yee yëkkati woon nañ ko yëkkati woon nañ seen raaya raaya da da ngay fekk kon islam doon doon synthétisme xiyam yooyu wala yooyu ni ko imaam Xasali waxee kama xaalal imaam Xasali radiyallahu anhu warasuha an anbiya alayhim salaam moom nee na kat gaa yi ñoom loola dañ dañ koo dañ koo donne ci anbiya yi waaw asalaamaaleykum wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh والطاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتا وهب لي وارزقني كل انا تقي اجلا عجلا بالبشر مع مين حتى اقيم لدين الله اركانا يسر جوعي توبا احمني وقني عدل الورى وتجب لي لسم الكانا كسمها والآلي والهو يا مشايكين مسكون اجب وسلم بسلم حسن لي محمد وتولي فبارك طبعا سبحان الله امين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi ñëpp di nuyu waa àlla abdul xadim ak waa àlla ibaada wal xidma ñëpp ñu ngi leen di di siyaare di siyaare bu bu baax a baax di jégalu di ñaan yàlla boole ñu defal ñu defal ñu tawfeex kaara ngi ni bala xam naa ne dafa am ñaar ñu laaj Bamba Faal daal mu moti ak ak ak Sidina Jóob moom mooy di jànge ndar di xale bu jàmbaar boo xam ne doo doomi soxna li doomi soxna di di bëgg mel ne ne ma ngi koy bëgg yàlla na ko ci suñu bu dimbale di dimbale ci doom soxna yëpp xam naa la ki ki kii daal laaj xut bu xaw soob awtaadi yaag imaamaani yaag nu xobaa yaag nu jobaak noonu daal seen laaj yi duggante ne foofu waaw loolu xut bu rek mooy ko mooy ma koo xam ne mooy madaarul amri ci jamonoom maanaam léegi network network network nga xam bu bu baatin nga xam ne maanaam maanaam léegi caax bi nga xam ne moo moo ci la ru yëpp digaloo nga xam ne am nañu batin connexion bopp fa la digaloo kooka mooy xutbu nga xamante ne moo jiite gaaya moom moom lañ nommé mu mu jiite leen doon seen amir amirul amirul xaw mi bu dee bu dee nag xutbul xawsu xawsu ji saa bu ñu soxlawoo ñaan ci dara jaam istixaasu ci dara jaam ngir dara su boobaa la melokaan wa sifa boobu di di rot ci moom ñu ne xutbul xawsu am na leneen beneen sifa bu ñuy wax xutbu falaki daa irati wujud mooy moom mooy mooy doon na jum doon na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu nekkat kooku mooy xutbu falaki daa'iratul wujud nga xamante ne secret ba bu susu xikam bu bu bu bu Ibnu Arabi Xaatimi qaddasallahu sirrahu day wax ne kooku mooy alfadlul jaami' li asraa'i asmaa'i wa sifaat ci misaal. man alfardul jaami la wax man man maa ca dolli alfardul jaami li asmaa i asmaa i wa sifaat waaw xam ne ko kooka kooka alxuraan jeeg tur yàlla yi secret yi yëpp fa fa dënnam balay bàyyi ko di di jëm ca ñeneen ginnaaw ba mu jógee ci borom bi jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko ko ko ko am solo la kon bu bu buñ dikkee diiwaan des na des na ko man na misaal diiwaan diiwaan buñ fa buñ fa demee yàlla ñu fa fa yàlla yóbbu diiwaan am na am na góor yàlla goo xam ne maanaam dañuy dañuy dañuy. teg ab ab xubba xëy boo xam ne xubba lay doon am ñaari ponk ñaari ñaari ponk yu ko wër ñaari poto xubba ba day doon wurus lay ñuru wurus ñaari ñaari ponk yi ja doon mar bu boo xam ne dafay weex am lu ñuul ñaar ñaari gaay yi koo muy xutbul xaw su moom dong nga fay fay dugg ki ñu jël ci nekk ci ci ci biti ñaari ponk yooyee kenn ponk bu ne bu ne jar ba càmmoñ ba dana am ku fa taxaw ka ka taxaw càmmoñ ne kooku moo ëpp doole ka taxaw da joor ba ndax kooku moom ko nekk ci càmmoñ ba mooy doon niju xutbul bul xaw su ba moo koy wutu ji am na lu ñuy tuddee awtaat awtaat awtaat yi mooy ñi nga xam ne suñu wàllu masakol yàlla ci kenn koo xam ne daa ñëwoon fii moom góor nanaa ko may moom ma téeméer suñu wàllu ne ko xaaral ba ci kanam ne ko moom ne ko déet boo may boo may jox la jox ma suñu wàllu jox ko mu génn suñu wàllu daal di wax ne kooku kat kooku kat daa bokk ci ñeenti ñi nga xam ne te mën a dëkk mag ak kee dëkk fii mën nañoo bañ a xamante mën nañoo bañ a gisante waaye waaye su su adduna bi bu bu ñu moyee yàlla ba seen borom nar leen mbugal ñooñu danañ jaamu yàlla jaamu gu tolloog mooy ga xëy ko daal ñooy jox équilibre maanaam suuf si ñoom ci arkaanul arbaa yi ci ci ci la ñu ne abdal yi nag. badal badal mooy ko xam ne poids am tum na poids am àgg na ci poids ru ruwaam àgg na ci su bëggoon a jóge fii dem màkka nekk màkka nekk fii xam na ko ne li ne si màkka madina dafa dafa dem màkka nekk ci kaaba gi nuyoo fa ako kenn ca waa dëkk ba ne ko foo jógee mu ne ko maa ngi jógee Tuubaa ko si maam si Ahmad Bamba mu ne ko moom ne ndax xam nga sëriñ Mbàkke mu ne ko mu ne ko kooku de sama mag la am na ko xale waaw mu ne ko ndax boo gisee danga ko xam mu ne ko waaw mu ne ko fii lay jullee waxtu yëpp ne ko nag su bu jullisee danaa la ko joxañ waaye nag bul ko nuyu mais takku takku saan jot mu daal di di koy joxañ daal di wax daal di ko xoolal kay xool mu gis ko mu xool gis ko muy si Mbàkke Madina te si Mbàkke Madina ñooñu mosu mosu ñoo xam ci taarix ñu ne de jóge na bi dugg ab yoon dem Makka wala dugg na na bato loolu mooy batal loolu la ñu tuddee al abdaal wala wala al budala al al budala wala al abdaal waaw waaw ñoo ko kon ndax ñoom mën na mën nañoo doon ay jëmm yu baree bari jëmm ju ne ne nekk fenn waaye am na ci nag ñu ñoo xam ne. ñoom liñ man mooy doon ñaar toxu fii dem fenn waaye bu ñu tox nag dañuy mel ni jëmm ji ñelaw jëmm ji nekk fii ci ci mboolooy moom day mel ne ji ñelaw ja dem moo mooy mën a yëngu am ñoo xam ne ñoom mën nañoo doon foro ay jëmm di yëngu fii di di yëngu après kenn ko waaye nag loolu loolu moom ci puissance bi la waaw an nuqabaa na na naqib am nay façon naqib pays ba am na ci am na ci ñoo xam ne ña ña ña ña mën a jël kàddu di wax ñooñu ay nu xabaar lañ waaye naqi moom mooy ko ko xam ne rek moom moom day day mel ne ne xalaat xam ne moom moom boo toogee fi moom day xam li fi yow sama sama ci way jur wa melo meloon na noonu boo boo toogee fi moom suñ moo doon njëkk xalaatalaw si da ngay for. daa ngay far sonn lool waxuma sa say cër rek waaye sama xel da ngay sonn lool ngir ngir maîtriser ko téye ko ndax da lay wóor cëng ne fu sa xel mi dem mu xam ko loolu naqib la nu jo bàyyi mooy ñoom it am nañ am nañ nga xamante ne ñoom it ñoo yor mbir yi mbir yi xamante ne li li li xew ak gu soxal dara ak nangam nangam waaw ñooñu ñu daal ay koor lañ am nañu beneen koor boo xam ne koor boo xam ne ñoom bu bokkuñu ci ñooñu ñëpp nag mooy li ñu tuddee al afraad ak waaw imaamaani gi wax nañ ko maanaam léegi koor bi mooy al al afra al afraad mooy mooy alxaarijuuna an daa'iratil qutb xut bu sa xut bu samaan yilif leen waaw ñoom ñoom ñoom hors catégorie lañ waaw ñooñu ñu am solo lañ nga xam ne ñoom maanaam ni ni nga gisee xudar sina Moussa di ab nabiyu mursal xudar yilif ko wala boog daal yilifu xudar yilifu waaw nga xam ne moom hors catégorie la waaw waaw doo ko tuddee yonent doo ko tuddee waliyu moom daal ñëw daal am na ñeneen ñu ñu tuddee al astar wala wala gaa yi dañ tuddee ci ci ci rijaalul xaybu ay gaa yoo xam ne ne boo leen gisee ay ay ay jëmm lañ man nga leen a gis di di leen di di di waxante ak ñoom ñu ñu maanaam nga xam ne ci jaww ji la nekk waaw jaww ji la nekk nekk fi mu nekk nekk ci ab monde alam boo xam ne ne ne ne fa wax xam ne léegi maanaam tey tey ku doxoon ba réer maanaam léegi mën nañ la kindi wala nga am soxla. wala ñu ñoom ñu gis la xettali la wax ak yow ci nangam defal nangam nangam wala dangaa def am nangam loolu mu ñu tuddee ci ci yaayul xayb aw al asar ñoom it ñoom it koor kët or or catégorie la ñoom waaw bu bokk ñu ñu ci gaa yi xam ne waaw loolu lo lo am solo lo yooyu nag ab xukuma la xuk gaa yi tuddee xukumatul batin la. gouvernement maanaam gouvernement boobu boo xamante ne te ne léegi noonu nga nga gisee ci Angleterre ñu tuddee xukam madu zil la gouvernement bi nga xam ne mooy mooy exer mooy exercice gouvernement bi bi yoru liggéey bi day am beneen gouvernement boo xam ne ministère yi toll na nag lépp lay am maanaam ba maanaam di di di di di di siège di toog di di xalaat ci réew mi yooyu loolu kon day mir day day niru ni kon mën naa ko loolu ñoo kon xukam madu zil kon moom la mën naa waaw waaye waaye gouvernement la bu bu bu fort bu bu bu bu fort ci fort waaw jërul jërul misaal meneen misaal leer na leer na xanaa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Modou xam naa bëgg naa la laaj sax seen seen seen bopp jaay ba xam léegi niñ koy mën a defee ñu la ku yónnee ba noppi nga xamante ne xool ci wax jël lu ci war a dagg lu ci war a dagg incha allah da da koy da koy dama ko ko fàtte waaye incha allah danaa ko kii ba ñu kii la ko xam naa ci laaj boobu boobu ñu laajoon ci xutbu ndax am na lu ko gën a kawe ci xutba nii ci xutba nii mooy koor bu mag ba waaw koor koor bu bu mag ba nga xamante ne mooy kàngam ya léegi nag maanaam maanaam maanaam tey diwaan boobu buñ teewee teew nañ am nañ ñaar ñu koy wër ñu tuddee leen al imaamani la ko jiitu tu mooy dañoo ci wax ne awliyaa yëpp dañoo wax dañ leen maanaam tànn taaral leen taaral ci génn ci téeméer ak fukk ak ñett ñu ñoo xamante ne mooy ñi gën a kale ñooñu nag ñu tànn ci juróom-ñaar tuddee leen ak nu jabaax tànn ci ñeent tuddee leen ay nu xabaax tànn ci ñaar tuddee leen al imaamaani tànn ci ci ci nag kenn nag mu nekk xutbul xawus pôle bu mag ba nga xam ne moom nga xam ne mooy pôle bu pôle pôle boobu ñu ñu wax ci tubaab pôle mu mu mu xutbu koo nga xamante ne kon ñoom ñëpp kon ay ak kàpp ay pôle lañ nga xam ne kon léegi téeméer téeméer ak fukk fukk ak ñeent ñi ñoo gën a nakkale ñoo gën a kaagale fukk ña ñoo gën a cadré ci téeméer ba juróom-ñaar ñi ñoo gën a ñoo ñoo gën a cadré ba tey ñeent ñi gën a cadré ba tey ñaari ñaari ñi ñett ña gën a cadré xam ne mooy ñaari ñi ñuy wër ci kilifa ga ñaari ñi ak kilifa ga xamante ci tere nag nekkoon ut bul xaw si moom dañ koy tuddee ñu xaw si bi moom maanaam léegi mooy saa bu nit soxla woo ndimbal ci jaarale ko ci ci moom moom la moom la léegi am tur woowu ñu ne ko xut bu xaw sa waaye waaye waaye waaye xutbul bul akbar rek mooy ki nga xamante ne moo jiite ñooñu ñooñu ci kuréel ba. waaye nag dañoo ci wax ne bu bu ñu nekkee foofu foofee ca diwaan sama ceete bi day sa sa salaam bu ñëwee su dee wax xutbu xutbu xaw si wala xutbu ak ca ca ca akbar ba rek moo ko moo koy mën a xam mooy mën a dégg ko yaar ga su su waxee yow moo koy jotul yow li li borom bi yàq bu dee yéen tamit sam teewut it moom moom moom moom mooy teew nga xamante ne nekkoon moom bu teewee bu bu wéyandoo tamit baax sam teewut xot bu bu akabar bi mooy teew bu teewee nag benn xubba zahabiya xubba boo xam ne day mel ne or la ñaari ñaari keno ay poto seq ko seq ko seq ko mu ne ci mu ne ci biir maanaam moom xubba ba gaa yi nag ñaari ñi ñëwal ko ñaari ñaari ñi nga xamante ne ñoo ko gën a jege te mooy al imaamani ña jële si ne nekk ci biti ñaar ñëpp ci biti la ñu nekk moom moom moom moom da ngay nekk ci biir xamante ne ne maanaam maanaam moom nag maanaam da tey bu dee dafa am lenn loo xamante ne dañ koo bëgg a xalaat tey kat ñaan yàlla musiba mu bëgg a ñëw ci jamono wala yooyu dañu fexe ba du am ñoom ñu koy dëppoo ci dara wax ko wax ko maanaam su su borom ñaan ko ko bu dee nangu na ko loolu du am muy muy lu lu lu am maanaam ñaar ñooñu xamante ne ñoo war a xot bu xawsu bi wala xot bu bu akbar ka ka ka féete maa naa càmmoñ kooku la gën da da boor ka féete la yor ndax xot bu akbar bi làqoonte moom moomu moo moo koy wutu yaa di ji jaar ca ca ñe ñeente ña remplacé ko jaar ci juróom-ñaar yi remplacé jaar ci fukk ñu remplacé jaar ci fukk fukk ñeent ñu remplacé jaar ci téeméer remplacé noonu lañ koy def genre keneen koo xam ne day duggaat ci ci ci ci kuréel ba waaw mu remplacé placé si ko ko donc ku ku ku daal ku ku daal ku benn lii moom mooy li gën a kawe waaye nag am na nag gaa yoo xam ne ñoom dañoo wax ne maanaam léegi al afraad min al awliyaa xaarijuna an an an daairati qutbil qawsi am na gaa yoo yoo xam ne yàlla dëgg na baaxee ñoom xutbul akbar bi jiitu ko leen ñoom ña ña ngay dox ca ca feneen am na ñoo xam ne malaaka yi am na ñoo xam ne xamuñu sax seen Jibril mën a aw turam nga xam ne ñoom ñoom beneen kuréel lañ boo xamante ne kawe nañ ka kawe ka kawe boo xam ne moom tuddee alaaluuna wala ahlul qurbiin xam ne ñoom moom si si xamuñu sax buñ si rajo Jibril ndax ak kawe kon kon nag ci ci ci gàttal non non non la waaw nga nga nga xamante ne bu dee da ngay da da ngay junj da da da da nga naan kat fi ñu fi ñu toll nii day mel ne da da day mel ne sax kat ki nga xam ne moo jiite yëf ya nit ku weex la ka ca ka ca ca la joom daa weex ka ca càmmoñ ñoom ñuul loolu xam naa kon bu dee bu dee da ngay junj da nga naan loola la salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh